c'est vrai que c'est un problème permanent ce n'est même pas un problème permanent c'est un problème de toujours jamono ju nekk rek problème yaa ngi fi du it du bees wax dëgg yàlla parce que 90 ak léegi moom defe naa fanweer ak ñaar la saa bu weeru safar feeñee moom moom centre ville Touba yi ci ëpp 75 pour cent ñàkk ndox loolu moom lu leer la ndox bu amul assainissement du am bi toppatit mooy assainissement bi certes l'État a dit que def na fi lu bëri mais des na ci li ñëpp constaté soo xoolee daal euh, assainissement bi daal des na comme ni nga ko constaté li ko ñëpp constaté ah bu tawee taw bu metti moom tali bi sax da nga koy bàyyi man démb génn na <laughs> mais tali bi ma jaar tali boo ci jaar da ngay xuus tali bi boo ci da ngay xuus mbedd yi ci des yàlla xam nu mel donc loolu kon daal laaj na liggéey bu rafet a rafet bu mag euh, comme Touba mooy deuxième ville démographique te su fekkee ne su fekkee ne su fekkee ne citoyen nombre de citoyens qui est important parce que dans une gouvernance républicaine démocratique c'est le citoyen qui est important un tous les citoyens sont égaux kon deux citoyens vaut deux citoyens donc à partir de cela le le gouvernement vise le plus grand nombre mooy ban fan la nombre de citoyens yi ëppee fii boo nee soow mooy ndakaaru fa fa Sénégal nekk boo leen fii ma nekk maa ci moo ci topp Touba mooy deuxième ville démographique mais aussi mooy deuxième ville économique côté religieux gis ngeen ni mel jërul ma ci jaar gis ngeen ni nombre de de de de de bi muy am Rome amu ko xëy na noonu lañ ko organiser nag xëy na noonu lañ ko organiser euh, Mecque amu ko parce que dernière édition hajj bi passé avant Covid laa wax ça a été deux ñun ñu ngi xaar sept millions parce que ku nekk mode xëy na bi nga bi nga ñun mode ouverte bi lañ lañ yor nit jógee fu ne ñëw fekk Serigne Touba sept millions de personnes fu muy dajee valeur boobu aussi c'est important donc euh, jar na daal ñu jëlaat ci yi ci war a jël ngir que yooyu buñ mënul faj lépp it ñu faj ci quatre-vingts pour cent pour que bu dul daree économie bi fi génne bu dul daree de soins bi fi nekk bu dul daree valeur religieuse bi Touba am leneen lu jar a taxaw seetlu chaque année comme ni ñu ko waxee 7 millions de pèlerins lay ren daaw nii woon na ko mais ren dafa ëpp. déwén da koy ëpp. chaque at buy yokk dañuy gis tamit dëkk bi chaque at muy yokk nit ñi di gën a ñëw di dëkk si di gën a fekk si sëñ bi ndaxte ñu ngi sàkku nit ñi di dëkk baa ngi gën a yaatu loolu tamit est que du indi jafe-jafe yi toujours bu ñu defaree rek war nañ gën a mën a yokk yow ko. waaw ça veut dire euh, état du Sénégal. boo jëlee son budget d'investissement jël valeur bi Dakar am en tant capital jël le nombre de personnes bi nekk Dakar jël le nombre de personnes bi nekk Touba te jël investissement yi da gis ne y a un grand écart écart moo posé problème te bu ñu xoolee daal les plus grands nombre daal Touba day am dañ koy amal solo ba mu ëpp mais su fekkee ni juróom junniy milliards boo ci investir vingt trois milliards mu important cinq mille vingt trois ñaata la ci. kon yaakaar na war nañ ko gën a yokk yokk yokk yokk yokk mu ëpp solo loolu daal bu ñu ko defoon Dakar am na am na ay terre ak yu investissement yu bëri nga fa euh, bu xooleek euh, portion bi ci Touba am dina dina néew ba ëpp. moo tax loolu lu mat wax la lu mat a fàttali la pour que suñ gouvernement yi bay ci xel. ci côté ndox mi tamit gis nañ ne euh, am na fi ay forage mais est-ce que mën nañ dem ba tollu jamono yoo xam ne ndox di coupé forage bi bañ a fonctionné tamit loolu tamit. daka metti metti na lool de wax dëgg yàlla man man xam naa duñ ne xamuñu ko. si naa la quatre-vingt-dix ak léegi c'est le même problème kon xam nañ ko. waaw xam ndax dañ jéem dara wala dañ jéem dara xam nañ ne moom màggal la ngi ñëw te ndox du am. waaw forage yi xam nga Touba nag vraiment dépassé na ay ay ay ay forage trois millions de personnes on dirait deux millions de personnes officiel euh, officiellement mais officieusement on presque quatre millions de personnes en fait ñooñu nag ay forage mënu leen a dundal mënu leen a màndal da nga waxante dëgg ak ñi ñëw chaque jour ak ak li fi par jour te Touba chaque jour parce que am na màggal di wér mooy li sëriñ bi ne nañ nañ nañ nañ nañ indi Lac de Guiers bi investi ci milliard loolu rek moo jaadu loolu loolu rek loolu loolu rek daf la c'est l'unique solution en ce moment dinañ am ndox comme ni ko Dakar amee soo bàyyi dinañ fay comme ni ñuy fay Dakar parce que suñ mënee jënd crédit man ko man ci fay xaalis mën a jënd a ndox mu neex biteel bi cent franc man ci am mu jariñoo cent franc kon war nañ mën nangoo fay nag waaw dëgg dëgg nag ku ne war ci sa bopp li nga soxla waaw ndox moo gën a précieux lu mu mën a doon. astafurlah du ma ni li lañu dañuy daal di àbb tuuti. ay non ay non pas de souci. Mhm. bi casquette euh, politique bi. Mhm. Euh, gis nañu bi politique euh, keroog na ban jàngat nga ci daal xam naa moom du wax leneen yëpp. waaw waay été déçu hein j'ai été déçu parce que kilifa. élite dafa war am dafa comportement mu dëppoog lim doon alors mais su ma gisee kuy leader bu def moom leader bëgg a nekk leader di wax ñu dagg wax ji mu këf micro bi ba mu neex mu dóor ci suuf kooku je pense que wax naa ne bis bu élève ñàkkee kontaan wala ñu bañ ko jox note yu baax mu dam taabal ji wala mu damm siège bi du ci wax dara c'est un mauvais exemple ba ci toppaat aussi mooy di jóg di tëb di taxaw ci yëf yi réewande laa gisaat ça veut dire que j' l'impression de voir des voyous des bandits hein des gens qui ont l'intention de détruire ci ay kilifa kilifa oui non man na mel nag loo nekk dëkk tekkee ñàkk a tekkee dara boo nekkee député kilifa nga parce que su la tan na ci 17 millions de personnes kilifa nga. c'est des gouverner. à mais ñi ñu gouverner bu su boobaa dëkk bi tàkk. su boobaa dara ko jar parce que melukaan bi nu muy gouverner nag gouverner kilifteef moo koy def walaw kunta faddan xalida al la lan faddu min hawlik suñu ma def ne nante bi soo nekkoon fayantookat bu dëgër boo xam ne si da ngay rendre monnaie yi kon tey doo li nga am nii lépp mais yow su ne da nga dam ba noppi ne yow da nga am problème ak njiitu réew mi mais njiitu réew mi nekku fa yaa ngi wax ak Sénégal yi la fal war laa dalal nga ñëw war war leen a wal ni nga mel wax ak ñoom jox leen bon exemple nga ñëw war di taxaw taabal ji këf kees ga daw non j'ai été je pense que tous les bon sénégalais xam nga nag man faruma ci loolu li may wax ni faruma ci nii nii damaa wax li dëkk man bu ñemee samay position la dama ne sénégalais bu patriote waxuma nag patriote de nom je dis patriote vrai patriote de comportement et d'esprit ku bëgg sa Sénégal ku ne xam nga ne lii rafetul comprendre nga Sénégal du Macky Sall fi la ko président Macky Sall fekk fi la koy bàyyi Sénégal les personnes dañuy jàll l'institution bi daf fiy des am na jëf joo xam ne boo ko fi dee aussi daf fiy des ba faw donc euh, du ñoo ko Macky Sall mais ñoo peuple sénégalais bi

ñoo waaw waaw waaw waaw. waaw. waaw. yemaloo say jabar de islam waxul loolu de <laughs> ay jabar rek lañ di yemale de. waaw nag dinaa xam ne moom. est-ce nu ma fégalee nii de lan may def sax ji damay laajte. kii dafa ma wan ne la a ma ko <laughs> ko gis naa xam ne porte la li am benn marque dañoo waaw ok. non non non non non